nataal juróom nowin ak njabootam aaroon nañu leen ci biir gaal gi ci biti ñépp a ngi doon fo juróom ñaari fan yi ci tegu taw bi commencé wàcc ndox mi di wàcc di wàcc ba gaal gi tàmbalee yëngu ci kaw ndox mi ndox mi di yéeg di yéeg di yéeg ci ñeent fukki fan mu fees suuf si mépp tund yi sax feeñatuñu woon lépp dugg ci ndox mi góor yépp jigéen yépp ak xale yépp lab picc yi ak rab yi yépp dee ci ndox mi amatul woon dara ci kaw suuf si bépp nowi nag njabootam ak li nekkoon ci biir gaal gi rekk amoon dund ñoom rëccoon nañu mbugalu yàlla ci lu yàgg ndox des ci kaw suuf waaye benn bés ndox mi lépp wey ci loolu noyin ak njabootam génn ci gaal gi ñoom ñépp ñu ne jërëjëf yàlla ci li ñu musal